asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk Sénégal ñu ngi leen di leen di leen siyaare tey jii nag ñu am yéene pour waxtaan ak yéen may leen benn remède naturel bi nga xamante ni dafa baax lool macha allah rabbi pour les reflux gastriques maanaam ñëpp ñi nga xamante ni dañu am problème mu reesal ñam wala ñu am reflux gastrique œsophagien loolu boo leen ko déggee maanaam ñi nga xamante ni euh, seen estomac mbàq mi dafay def ay reflux de gaz wala lekk yi ñuy faral di lekk. dañ koy sentiraat muy def ay remontées wala muy def ay gaz ñuy à tout moment dañuy ngelawal biir bi di yuuxu di jooy di yuuxu di jooy bu ñu jàppee sax seen jàpp day gaaw a toj loolu pomme vert ak pomme rouge ak ñaari citron ñi ni amit am poudre de gingembre poudre jingeer ku ko amul it boo ko mënee dugal sa mixeur it ba tey doomu jingeer ji baax na soo amee poudre bi baax na kon nag ñu jublu ci nan lañ koy defee boo leen seetloo mixeur bi dama ko duy ndox ba mu digg ginnaaw duy nañu suñu ndox ñu haché ump suñu pom comme nañ ko waxee woon sànq rek feebar bii muy feebaru reflux gastrique muy feebaru biir te lépp lu jëm ci wàllu biir rek bu am jafe-jafe di metti di jooy di yooxu di ballonné def gaz ngay seere di constipé sa lekk du rees voilà mbokk yi comme ngeen ko gisee jingeer miel citron ak ñaari pomme rouge ak pomme vert lem bi dañ ko wara nat ci kuddu buñu amé ben cuillère à soupe miel dina bax inshallah légui nak kuddu gu ndaw pour poudre jinger bi buñ ci amee lu tolloog ñaari kuddu dina baax ku wax jaaro nag ci réew mi ci Sénégal wax Serigne Lamine baara Fall ndax wax dëgg yàlla bëri na ay doomu aadama yi nga xamante ni bëri woon nañ ay xet-xet ak jafe-jafe ñu jàppale leen ci ay ñaan ndax ñaan mooy gàllaaju jullit ñaan yi ñu leen di defal nag ci ay jaaro lañ koy def comme exemple jaaro bu bleu bi ak jaaro bu rouge bi ñaan yi soxla nag mooy lu leen aar ci cat ñaan yu leen aar ci làmmin ñaanal lay itam seen wërsëg ak seen liggéey gën a jëm kanam li ci ëpp solo mooy pour nit ki wërsëgam ubbeeku ñaanal ko ci yàq-yàq ak pexe doomu aadama yi nga xamante ni jamono ji ñu ngi am jaaral bi ku ko am képp ku la liggéey liggéey buñ la def du la dal incha allah rabbi ndax li ñu constaté mooy ñu bari dañuy am wërsëg mais wërsëg bi ñu am xaalis su toog seen loxo waaw jaaro bi nag bain mystique bii la àndal ànd ak ay sangat am ay suuru en même temps jaaro bi dafa ànd ak itam cuuraay seytaane fépp foo nekk ci àddina mën na fa dem jaaro bi nag képp koo ko soxla boo ñëwee géejawaay arrêt du bales kër Serigne Bara Fall daa ci jot wala fépp foo nekk ci àddina mën nañ la ko livrer incha allahu rabbi ci kàttan yàlla mën nga ñu woo ci numéro bii di 77 169 45 45 77 169 45 45 voilà sunu mbokk sénégalais yi yaakaar naa sunu recette bi am na ma leen ko promettroon pare na ci jàmm ak voilà boo leen di xool di ngeen am benn genre jus vraiment bien mixé y a un remède naturel bi nga xamante perte une valeur traditionnelle africaine ñun Afrique am may la lay ak la lay jëriñ xam-xam la dafa rek sorewul rek suñu borom dana ñu dajalé lan mo gën ci ñun kon nak ñu déguster suñu recette boo ko Pom bi ñepp xam nañu ni pom dafa baax ci digestion dafa baax ci luy resal ñam dafa baax itam ci lu bare bare bare bëri na verte lu pom di jëriñ ci biir du deug ñaaral mbir ba ak yi mu andal comme ni ngeen koy gisee ma sha allah rabbi kon nak kep ku am ay reflux gastrique am problème gastrik, gastrique am problème gaz am problème mu bir, biir mom ma sha allah niñ koy jëlé rek mom yang ci jël mom chaque chaque jour da ci jël ben casse chaque jour dang ci jël ben kaas lem bi su doyul mën nga ko doli te so koy nanit da ngay bolé lepp jël waaw dal ma sha allah bo len ko jëlé ngeen utiliser ko ci carton yalla képp ku ci amone problème reflux gastrique bala yag rek di nga ci gis tawfiq incha allah rabbi way are du balees keur serigne lamine barafal képp ku bëgg plus d'information mën nga xol euh www.laminebarafal.com wala nga dugg Google def univers bio di nga gis suñu liggéey bu baax a baax merci beaucoup jërë ngeen jëf yàlla yàlla def jàmm xéwal ak tawféex